Merci à mes internautes et bienvenue à toutes et à tous, chers amis. Bienvenue sur ce nouveau entretien de senclic.com. Je reçois Moussa Omar Diop, directeur des relations extérieures bu ADIE. Moussa Omar maa ngi lay sant di la gërëm ba pare aussi am mbégte ak kontaan yéen ñiy seetaan encore une fois di leen remercier ci seen i ànd ak ñun saa su nekk di ñu aimer di abonné suñu seen YouTube ba pare di ko partager tey nag li suñuy faral di waxtaanee ak Moussa Diop mooy moom moo yor euh, relation extérieure bu ADIE c'est l'agence de l'informatique bu l'État ñëpp gën ci ràññee Cheikh Bakhoum depuis en 2014 ba léegi mu géré ko tey nag kenn ci ndawam la ñuy waxtaanee moo nekk fii Omar Diop maa lay nuyu. Euh, merci Souleymane ma lay nuyu di la di la sant di nuyu tamit euh, mbokk internet yëpp bu bu Senclic ñëpp képp kuy suivre Senclic di nuyu tamit euh, toute la population de Grand-Yoff en particulier et aussi en fait waa Sénégal di profiter si ci interview bi. pour euh, baalu àq ñëpp di souhaiter à tous les à toute la population sénégalaise n'est-ce pas un bon mois de Ramadan euh, sachant que quand je dis toute la population sénégalaise c'est un comme on est un pays laïque n'est-ce pas suñu mbokku chrétiens yi yàggul noonu léegi la ñuy fête seen Pâques tamit ñoom tamit teewul dañuy accompagner si ci weeru koor yi di ñaan yàlla yàlla na nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu ñaan merci beaucoup. Euh, jërëjëf yow yaa géré relation extérieure bu ADIE mais avant tout dañu bëgg xam monsieur Diop euh, ADIE cest à lan moo ko wundu xam nga agence de l'informatique de l'État te Sénégal euh, langage yu informatique bi gars yi dañ ko xaw a comprendre ñu ko bu baax a baax a baax donc agence de informatique de l'État mën nga ñu ko résumer tuuti lan mooy liggéeyam ci gouvernement bu Sénégal. question boobu dama ciy sawar a tontu parce que ADIE muy agence de l'informatique de comme turam nu ko nu mu ko bindoo dafa nekk agence boo xamante ne dafay accompagner administration état bi lépp lu structure boo xamante ne dafa rattaché ci gouvernement bi day da koy accompagner di leen jox ay outils loo xamante ne moom la ñuy mën a utiliser ci seen liggéey pour seen liggéey mën a gën a gaaw mën a gën a efficace mën a gën a efficiente ñu mën a gën a gagner gain de temps donc parce que tey gis nañ ni dëkk yi nga xamante ne ñoo gën a taxaw ci àdduna bi boo jëlee États-Unis nga xamante ne Euh, structure informatique yu gën a mag muy ay Facebook wala ay Google foofu la ñu nekk mu ñu demee ba toll nekk première puissance mondiale parce que informatique am na ci wàll bu am solo te àddina tamit tey jii mun naa xam ne technique la pour état bi pour jàppale état bi ñu mën a moderniser seen administration donc ci wàllum procédures yi admi addiye te tamit procédure boo xamante ne da nga doon utiliser di dem def ay démarches physiques addiye dafay taxawal ay jumtukaay yu nga xamante ne tey mun nga toog foo munti doon ci àdduna wala nga nekk ci Sénégal bi nga def en ligne def sa ay démarches administratives moom la ñuy wax dématérialisation des procédures donc ADIE ci wàllum boobu yëpp lay nekk di di tëral ay jumtukaay ci wàllum informatique pour jàppale état bi mun a jëm ci kanam du mu gën a gaaw. fii ku ci mel ni Facebook Twitter Instagram donc da ngay boo ci réseau boo ci dem da nga ciy fekk réseau gouvernement bi. da ko ci fekk moo xam ministre bu mën a doon environnement wala éducation ak yooyu da ngay gis que ni donc communication bi dañ ko gën a dañ ko gën a yombal aussi tamit boo demee tamit ci ci ci ci ci ci ministère yi boo fa demee accès bi aussi tamit dañu gis lépp dañ ko moderniser ba ci nga ay badge électronique dañ ko fay gis yu demee noonu te dañ ko ràññee ci ADIE mais aussi loolu yëpp liggéey bi est laaj na formation par de de temps formation parce que donc comme Sénégal boo xoolee donc ci wàllu technologie bi léegi ñun dañ ci xaw a dañ ko jëlandoo mun naa ni boo xoolee ci yenn pays francophone yenn anglo ñëpp ñoo ñu gën a développé parce que ñoom dañ koy jàng mais ñun dañoom benn problème de formation formation boobu SEO tamit ADE ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci yëngu donc avant de mettre benn moderniser benn affaire ci wàllu informatique ak yooyu comme si yéen a ngi former ñi nga xamante ne ñoom ñooy utiliser loolu former population bi former gouvernement bi ne lii lii la application bi nii lañ koy doxee donc lii mooy utilité am ak yooyu ba nga xam ne dafay jaar yoon. Euh, je que informatique déjà dafa nekk domaine bu vaste euh, domaine boo xamante ne dafa laajte comme yenn compétence yi. Euh, ADIE ci boppam boo xoolee sax li ko ëmb ADIE mën nañu plus de cent cent personnes. personnel si cent personnes yooyu presque mun naa ni plus de la moitié personnel bi yëpp ay ingénieur lañu ay ingénieur yoo xamante ku ci nekk ak sa euh, qualification diverse ñi mën na nekk ay ingénieur développeur ñi ay ingénieur réseau et tout sax donc buy nekk ci wàllum informatique dafa laaj quand même yenn niveau de compétence yi ak yenn info yenn yenn formation yi nga xamante ne di nga mën a euh, lu ñu lay jox li ngay li ngay mën di li ngay liggéey dans le domaine en tant que tel mën ci di nga nga mën ci xariñ di ko def ci mu yanu maana parce que tamit informatique euh, ni nga xamante ne noonu la amee ay avantages noonu la amee tamit yenn fay parce que parfois tout le temps gis nañ ni jamono yi ñu weesu lu ñu naan cybersécurité donc comme lu mën a expliqué donc dafa dafa laaj ay nit ñu xariñ yoo xamante ne ci liggéey yooyu dinañ mën a Euh, gérer aspect lépp lu lié ci informatique lu mu laaj surtout côté sécurité bi parce que tey jii jamono bi dañuy wax ay cybercriminalité ay cybersécurité nga xamante ne boo ci amul ay nit ñoo xam ne xarañ nañ si domaine boobu noonu duñu ñu mën a tëral ay ay ay ay ay tànk yu leer nga xamante ne mun nañu anticiper ci ay attaques ay hackers yi n'est-ce pas ci euh, si sunu si euh, sunu gouvernement bi en tant que tel ak administration yi ñu ñuy liggéey mais te weesu suñu yem suñu du ñu yem ci loolu tamit ak addi yi nga xamante ne am na ay experts yoo xam ne suñu su ñu defaree ay outils boo xamante administration moom la ñu utiliser ñu dañuy accompagner tamit les utilisateurs de l' administration parce que ADE comme moo ko waxee depuis au début de l' entretien c' est un de l' administration donc l' administration ñun suñu rôle mooy outil bu ñu déployer pour que administration bi mun ko approprier mun ko utiliser tamit ñun ñu jàpp ñu former leen ci bi nga xamante ne tey ñoom ñoo ngi koy gën a mën sax donc loolu yëpp dafa laaj vraiment une formation n'est-ce pas ak yenn compétence yi ok ci côté cybercriminalité bi lay ñëw donc euh, gis nañ ko di comme parfois nga dugg Facebook gis ay yenn fausse agression donc yenn nit yoo xam ne dañ laan la Macky Sall lañ do alors que du ay Macky Sall donc yéen en tant que responsable euh, responsable yi nga xamante ni ne géré ci côté informatique bu état bi yéen loolu ban matuwaay ngeen ciy jël quoi ban matuwaay ngeen ci jël bon côté euh, xam nga tey nekk informatique tamit loolu rek moo ci am lu koy lu ci ñuul parce que dafa dem développé nga xamante ne tey ku nekk ci àdduna bi en euh, fi ngay toog yaa ngi déggante kenn gis nañu WhatsApp gis nañu ay messa ay messenger gis nañ comme ni nga Facebook te tey malheureusement yaa des gens yoo xam ne mal intentionnés dañuy ñëw di créer ay faux profil pour pour jéem a arnaquer nit pour d'autres fins mais loolu noonu loolu noonu ce sont des comptes yoo xam ne privés en genre ay Facebook yooyu noonu ce sont des sociétés privées yooyu en général boo amee c' est que peut-être euh, gouvernement bi mun na am benn corps wala benn entité boo xamante ne moom mooy nekk ak ay Facebook pour mun a euh, bloquer wala anticiper ce genre faille mais lépp loo xamante ne ñun daf ñu dañu daf ñu daf ñu daf ñu concerné mais côté messagerie gouvernementale wala contre côté euh, site web gouvernemental yi loolu yëpp ñun am nañu au niveau de la l'ADIE lu ñuy wax ay cellule de crise nga xamante ne cellule boobu ay compétence yu bokk bu nekk mun na nekk benn ingénieur développeur benn ingénieur en sécurité euh, vice versa d'autres profils yi nga xamante ne ñoom ñooy toog ci genre cahier bu amee ñu toog waxtaan ci xool yan plan d'action la ñuy tëral pour mën a éviter affaire bi mën a gën a jëm kanam ba pare ñu mun ko bloquer donc loolu noonu ñun euh, au niveau de l'ADIE quand même am nañu une cellule de crise vraiment performante qui permet vraiment de de pouvoir relever à ces défis ok euh, benn affaire aussi tamit da ngay gis gars yi nekk extérieur donc pour seeni extrait ak yooyu dañu am problème donc ci côté état civil yi aussi dégg nañ ko si tamit quatre mille cinq cent kilomètres fibre optique yi nga xamante ne nii donc installé nañ ko partout te yenn local yi soo fa demee comme nga génn Dakar donc da ngay gis yenn état de civil yi dañu am problème mu connexion donc loolu lan lan lan la est-ce que décentraliser ngeen donc fibre optique yooyu noonu mun a yegg ci région yi ak yëpp donc ak yéen fan ngeen toll ci liggéey bi nga xamante ne ni tey par exemple ku toog biir këram war a mën a toog fii soxla sa benn état civil dugg ci internet tappe ko ñu indi la ko vite fait loolu liggéey ADE la loolu ban ngeen ci fu ngeen ci toll actuellement. bon du wàllum état civil moom du domaine ADE donc loolu am na benn. structure boo xamante ne indépendante boo xamante ne moom mooy gérer loolu donc mais ADIE n'empêche structure boobu bu soxlay ADIE pour mu accompagner ko ci lépp luy informatique si base de données même état civil bi ADIE am na ay compétence et te mun na leen jàppale pour ñu def ko donc loolu xam naa duma ci mën a sori mais lépp luy nekk connectivité au niveau national effectivement 4500 euh, de kilomètres fibre optique ADIE mettre nag en place au niveau national donc boo demee ba Ourossogui tey jii y a muy su muy préfecture yi wala yenn gouvernance yi fu mu nekk nii nga xamante ne structure boo xamante ne ci gouvernement bi la bokk tey foofu noonu am na connectivité loolu loolu loolu nekkatul un problème n'empêche tamit na yeneen projet yu ñuy dugg nga xamante ne pour gën a mayewaat le territoire national te tey sax mën nañ ne fibre boobu noonu euh, muy opérateurs yi nga xamante ne ñoo nekk fii nii ci ci ci gox bi di Tigo Expresso wala Sonatel ku ko bëgg nga xam ne nekkul ci gox boo xamante ne amu fa connectivité bu laaj ADE ADE sax mun nag jàppale pour mu am connexion foofu noonu ci zone boobu ñun tey ji am nañu capacité bi donc euh, donc n'empêche loolu tamit ADE tey ji au niveau national am nañu mun naa ne am nañu réseau mobile de type opérateur parce que am nañu exactement comme Sonatel li mu amee 77 Tigo am 76 Expresso am 70 ADE am na benn réseau boo xamante ne daf ko teg pour le gouvernement 79 79 boobu loolu yëpp dañ ko fi def pour nga xamante ne la fracture numérique ñu xool nu ñu koy réduire contribuer contribuer vraiment à la réduction de la fracture numérique parce que tey képp ku nekk ci gouvernement bi am numéro 79 ba booy woo sa beneen morom bu nekk ci beneen structure wala ci beneen beneen agence kooku noonu du woote boobu gratuitement la te Aliou teg na ko parce que tey ji au niveau national on a plus de 50 euh, mun naa nu ñuy wax BTS don ay antennes yoo xamante ne day permettre kii kii nga xamante ne am na numéro 79 bu nekkee ci zone boobu dina am couverture pour mun a woote. mais numéro 79 yooyu c'est fait juste pour les les les hommes politiques ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci gouvernement bi wala. non c'est c'est pas fait pour les hommes politiques c'est pour l'administration sénégalaise am l'administration sénégalaise ñu ko ñu ko ñu ko ëmb ñëpp am na ay hommes politiques comme non politiques c'est pour l'administration pour sénégalaise ok c'est très important donc administration bi ñu def 79 boo xamante ne mais suñ ko décentraliser woon mu gën a mu gën mu gën mu gën a wàcc nga xam ne dafay gën a large pour man pour man par exemple ñu mën ci am quoi ñu ne gars ni création d'emploi bi dafa dafa dafa dafa bari lool ci ci à travers internet bi donc te c'est trop facile pour nga créer sa entreprise ci internet mais aussi dafa difficile pour nga réussir ci parce que dafay laaj ay financement dafay laaj ay moyen dafay laaj beaucoup de choses wax nga ko cyber criminalité attaque ak yu demee noonu yéen ADE est-ce que pare ngeen pour euh, est-ce que ni ngi yëngu ci ci ci ci financer ci soutenir jeunes yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi créer seen entreprise à travers ci internet bi. bon donc internet effectivement moom tey jii mun nañu wax ni c'est première première source de métier la parce que tey da ngay gis ñoo xamante ne dañuy def seen ay vidéo YouTube di ko ci posté par rapport au nombre de vues yu ñu am tey jii ñu am ñu ñu leen di ci fay ay ay ay euh, Google di leen di ci fay donc y a même ay Facebook ak ay IBM ak bu ñu demee ba toll fu ñu toll tey. ñi ko créé woon ay xale la ñu woon amuñu woon dara ils ont comme ça mais tey euh, aujourd'hui ADIE si programme am bu muy tuddee YouGov Lab Challenge nga xamante ne l'année dernière en 2017 moo nekkoon première édition bi dafa organiser woon benn concours boo xamante ne étudiants yi ak start-up yi képp kuy euh, petit entrepreneur bëgg am ay projet dans le domaine informatique nga xamante ne si yenn secteur d'activités clés yu yu nga xamante ne agriculture wala pêche nga xam ne dañuy xool nu ñu koy moderniser ñooy dañ leen regrouper woon on avait plus de 200 candidats candidats yi bu ñu demee y a eu 18 lauréats 18 lauréats bu ñu paree adiya da leen accompagner pour mun leen def incubation accompagnement boobu du lu lenn mooy seen projet ñu xool nu ñu leen si jàppale ba mu gën a mûrir ba mu gën a màgg gën a dëgër par rapport ak ñun ay conseils yu ñuy jox ak expertise bi s'il le faut sax ñu jël leen ñu indi leen dans notre dans notre siège nga xamante ni foofu la ñu toog parce que tamit ñooñ di liggéey ci projet dañuy soxla parfois am benn local boo xamante ne dañuy toog pour liggéey fa local bi am lépp luy wàllum connexion am seen ordinateur am loolu lépp loo xamante ne vraiment dina am benn euh, benn commodité pour mën a def liggéey bi si mu jaar si yoon. donc addiya ci côté boobu lay lay leen di accompagner teewul Eagle of challenge bi effectivement addiya joxe woon na lauréat bu ci nekk euh, yenn yenn montant je pense que su ma jumul demoon na le premier avait même cinq millions moo xamante ne dañ leen permettre ñu mën a def seen projet ci kii mais teewul euh, loolu noonu dañu ci continuer incha allah di ko di ko di ko renouveler y prochainement la la deuxième édition de EcoVland Challenge incha allah. mais candidature yi dafay nekk ci nga xam ne ñu ngi yëngu ci agriculture wala ci ay ci économie wala genre mais pas euh, ci ci information juste c'est-à-dire statut yi ngeen di laaj benn statut la. donc en fait candidature mën a nekk des des des universitaires mën na nekk ay étudiants mais léegi nag dañuy cibler ñu ni bon dans tel secteur d'activité pêche bi wala agriculture war nañ ko développer lan lañ koy développer nañu créer benn outil. ñoom noonu la ñuy nekk nag ñoom ñooy xool seen projet ñu kii ñu ñu réfléchir ñu ñu ñu xool nu ñu accompagner ces secteurs là mais en général les candidats profils yi ce sont des étudiants donc ou bien ce sont des start-up donc euh, loolu loolu loolu loolu la mais teewul ñu yemalewuñu ko kese si au niveau de Dakar c'est au niveau national parce que université de Gaston Berger de Saint-Louis amoon na ay candidats yu si bokkoon école polytechnique de Thiès tamit amoon na tamit euh, ay candidats yu ñëw di si bokk c'est au niveau national. donc tey euh, en 2014 ba 2019 tey est-ce que mën nañu xam tey bilan bi nga xam ne donc ADE def na ko fii ci wàllu innovation ci wàllu développement aussi tamit jëm ci modernisation ci wàllu technologie bu Sénégal. donc ci wàllu développement technologie mun naa ne depuis ADE bi mu existé ba léegi sax à part être maillage. lu ñuy wax ni fibre fibre optique bi avec cent de kilomètres loo xamante lu am solo c' était un gros projet ADIE mettre en place loo loo xamante lu raar mooy le messagerie gouvernementale parce que tey ji administration amoon ay jamono ku ci nekk sa ay compte yow la nekkoon yoroon wala ay compte Hotmail wala Gmail te ki nga xamante ne ngay liggéey si administration nga ne am sa ay données sensibles nga échanger par mail alors que ñooñu noonu ay yow et autres là ñoom nekkuñu ay privé lañ déjà sax seen seen données yi nekkul fii nii au Sénégal kenn xamul fan la loger donc tey ji ADIE mettre na en place en système ba xamante ne tey y de dix mille comptes qui ont été créés et les ministres ministères en fait surtout les les nouveaux ministères sax ñu euh, nga xamante ne euh, ñëwaat nañu dañ ils ont été enrôlés et les agences qui sont rattachées à ces ministères donc loolu bokk na ci innovation bi nga xam ne tey ji sérieusement benn sénégalais lambda bu nekk ci gouvernement bi am na benn compte bu koy wanee ni moo gën a crédible crédit bi gën a mu nekk ci gouvernement te données yooyu fii la nekk donc ADIE tamit mettre en place eh, yeneen outils mooy wax naa tamit ak dañuy accompagner ministères yi par rapport ak dématérialisation de certaines procédures donc ministère boo xamante ne ma jël benn cas ndaw sport au niveau des sport boo demee par exemple bëgg louer benn infrastructure sportive n'est-ce pas c'est une demande boo xamante ni moom nga doon def mais léegi tey jii dañu dématérialiser loolu noonu ci benn plateforme la ki ko soxla mun nga dugg ci plateforme bi connecté wu nga def sa demande en l'espace de vingt quatre heures quarante huit heures demande bi ni nga ko traité n'est-ce pas nga am benn réponse te sans pour autant nga dem di déplacé wu donc loolu tamit dafa bokk ci innovation ñuy def donc teewul tamit toujours yàlla système informatique système de gestion du courrier n'est-ce le SIGEC noonu lañ ko tuddee SIGEC boobu du lu mooy Euh, circuit courrier bi ngay pare courrier bu dugg sa biir structure bi ngay liggéey fi muy jaar ñëpp ba nit ñi di signé di ko signé ba ba muy génnaat n'est-ce pas dañ ko dañ ko dématérialiser dafa nekk ci benn plateforme boo xamante ne tey jii euh, dina rendre beaucoup plus efficace le travail parce que au lieu mu daan jaar fu nekk wala sax courrier bi dugg fenn après mais bu xasee ba dugg ba ñu scanné ko dans la structure dinañ ko imputé fu mu ko war a imputé di direction directeur général dina ko imputé personne ressource bu ko war a bu ko war a traité personne boobu traité ko yónneewaat ko directeur général bi n'est-ce pas ainsi suite donc loolu yëpp bokk na si ay ay innovation yu ñu yu ñu def ak lu ñuy tuddee ay ay IPTA ay dans beaucoup de domaines aujourd'hui yoo xamante ne tey mun nañ ko cité ak Optica tout récemment Optica nga xamante ne c'est une euh, boo xamante ne mën na day permettre à toute l'administration de pouvoir partager nest pa yenn documents yoo xam ne c'est vraiment lourd n'est-ce nga xam ne doo am yenn espace de stockage ba pare nga am vraiment des idées n'est-ce pas sur les sur les différents projets dans chaque structure donc bokk na si ay innovation yu yu yu ADE def ak ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mën nañ ko mun nañ ko citer donc mun naa wax ne tey jii aujourd'hui au niveau de ADE il y à peu près plus de trente euh, plus de trente services yoo xam ne qui sont disponibles pour l' administration de l' État donc tey dañuy liggéey administration yu bëri qui font des demandes sur sur des besoins réels au lieu ñuy dem di dans le secteur privé ñu leen di si facturer très cher parce que ñun tamit suñu rôle accompagner état bi nga xamante ne lépp lu doon facture facture numérique ñu xool nu ñu koy wàññee parce que budget informatique tamit dafa dafa diis n'est-ce pas donc tey structure yooyu suñu soxlawee euh, yenn yenn outils yi Euh, soit dañuy ñëw si ADIE mu accompagner leen ñu développer ko soit outil bi existe na mooy ñu am ba pare ADIE fournir leen ko donc tey y a beaucoup de structures aujourd'hui de la de de l'État euh, qui utilise ces outils donc euh, à travers l'ADIE oui. donc financement ADE boobu noonu dégg naa la sànq nga su fekkee ministère bi dafa am benn besoin benn outil donc mën na ñëw donc wax ko ADE ADE l'ADE génne outil boobu ñëw jox ko c'est-à-dire boobu noonu wala ADE dafa am ay dafay créer dafa am benn société buy créer ay outils wala dafay dem jëndi di indi wala dafa am outil yoo xam ne ni dafa nekk euh, ci sur place ba pare. comme lu may wax ni euh, ADE y a déjà des experts des ingénieurs qui sont experts dans leur domaine ñoo xamante ne ñooy toog di. réfléchir di développer yenn outils yi y aussi des outils yoo xamante ne sont déjà disponibles yoo xam ne ADIE am na ko te gouvernement bi dafa signé ay contrats yu important yoo xamante ne ADIE moom moo moom mooy pilote mooy piloté pour vraiment la la distribution et la gestion et le suivi de ces outils donc structure bu ko soxla soit dafay am benn projet quelconque boo xam ne dafay laaj réflexion étude ak développement bu boobaa experts yu nekk dans le dans les dans, dans de l'ADIE dañuy accompagne ces structures ou bien ce sont des des, des outils clés en main comme on dit qui sont déjà disponibles boobaa tamit ADIE jox leen ko donc ñaar ñaar yooyu mun na mun na am. seen taxawaay ci élection yu ñu yu ñu weesu seen taxawaay lan moo taxawaayu lan moo nekkoon taxawaayu ADIE agence de l'informatique bu état ci élection yi nga xamante ne ni weesu nañ ci. bon si côté boobu mënuma la ci tontu parce que ADIE comme c'est une agence de l'État amul dara lu moo xamante ne war na ko def ci côté ci côté politique bi bu fekkee tamit peut-être da nga ma poser question nii le la personne du directeur général de l'ADIE qui est en tant que responsable politique de de l'État nan la am ban taxawaay la am au niveau de Grand Yoff pour loolu mun naa ci mun a tontu. waaw loolu danañ ci ñëw ci kanam cest à euh, élection yi donc lépp xamoon nañ ne benn instant c'est numéri c'est numérisé donc tant que ADIE agence de l' informatique de l' état cest lan moo doon nekk seen taxawaay ci loolu ci côté vote numérique ci walla defuñ ci benn benn taxawaay. loolu moom côté boobu amuñu lenn luñ ci def parce que loolu déjà même bu fekkee sax euh, comme li ñu doon wax ni lépp luy élection c' est par le ministère de l' intérieur te y la direction de l' autonomisation du fichier ñoom ñooy gérer lépp luy fichier. Euh, électorale bi donc côté boobu ADIE amul dara lu loo xamante ne def na ko ci élection bi. donc le directeur général de l'ADIE c'est Cheikh Bakhoum ku wax Cheikh Bakhoum dangay wax Grand Yoff parce que responsable politique APR la fii à Grand Yoff. vous êtes le responsable communication bu ADIE donc lan mooy tey seen ñu ngi ñu ngi ñu ngi jëm ci élection locale. yéen lan mooy seen seen seen seen taxawaay ci élection locale yi jëm ci jëm ci loo xam ne dafa jëm ci ci ci Cheikh baaxum bon ñun suñuy taxawaay comme ni ñu koy ñun dañu bëgg changement man man mii di wax yow man mii euh, Grand Yoff laa màggee donc euh, euh, Cheikh Bakhoum Grand Yoff la xamante ñu ñu màggandoo Euh, ñuy xarit tamit mu am confiance ci man tamit teewul ñu continuer di liggéey mais n'empêche c'est un boo xamante ne à part li nga nekk moom xarit tamit euh, liggéey bi tamit c'est beneen euh, beneen kanam la am ak moom ça veut pas dire que tu es ami avec lui que dans dans la vie professionnelle quand même donc il a yenn rigueur la am ko donc ci côté boobu ñun lu ñu bëgg mooy changement au niveau de Grand Yoff te changement boobu noonu pour mu am ñun dañu yaakaar ni yaakaar la jeunesse de Grand Yoff ñoo ko mën a apporter donc tey jii parce que gis nañu depuis des années euh, ñu nekk di gérer commune bi quand même euh, apporter ñu fi dara donc lu dul peut-être bàyyi ba élection di di jub ñu commencé di di taf yëngal fii di di teg fii alors que. seulement pour leurrer la population alors que tey jii euh, Cheikh Bakhoum il a un staff quand boo xamante ne euh, très compétent des gens qui sont dynamiques boo xamante ne dañuy teg seen stratégie yoo xamante ne yu leer boo xamante ne bis boo xamante ne euh, population grave bi wóolu nañu pour jox ñu commune bi quand même dañ koy dérouler parce que am nañu yéene tamit pour Grand Yoff quoi am nañu yéene surtout la personne en tant que telle Cheikh mun naa ci wax tuuti parce que euh, je pense que la dernière fois am na benn interview nga defoon sax ak sama benn naataango euh, camarade de parti Formose Mendy jotoon na ko jotoon na ko wax te effectivement il a raison parce que d'une part Cheikh koo xamante ne il a eu sa mu dem jàngi France n'est-ce pas euh, ba am diplôme am difa liggéey n'est-ce pas su ko neexoon def comme yeneen sénégal yu bëri ñuy def toog foofu continuer foofu mais euh, patriotisme sentiment de patriotisme bëgg dëkkam bëgg goxam moo tax mu ñibbisiwaat di xeex pour Grand Yoff mën a jëm kanam te tey ji gis nañ ni pour que Grand Yoff ñu mun ko avancer loo il faudrait que tey ñu mun ko téye suñu loxo parce que gouvernement bi lu mu ci munti def di def di def n'est-ce bu maire bi waxee ni non non non il faut arrêter il faut arrêter il y le pro programme de projet Promoville jusqu'à ce jour tey ji ils avaient démarré au niveau des mais ba léegi mënatul avancer parce que mairie moo dem ba ci biir xam ni loolu du seen intérêt ñu arrêté ko temps yi gis naa ni génne nañu peut-être les pavage là xam naa certainement ils pensent à à mettre mais tey jii ñun en dehors de ça on a beaucoup de projet ci côté sécurité bi ci côté emploi bi ci côté aussi cadre de vie bi on a pas mal de projets yoo xamante ne euh, le programme est déjà ficelé et qu'on aimerait incha allah rabi si nous avons la confiance des grands Yoffois ñu mën ko mettre en œuvre n'est-ce pas comme quoi ku képp ku yeewoo Grand Yoff mun ci gis boppam. mais moom en tant que responsable déggaguñ ko fenn mu taxaw ne damay postuler wala genre yooyu noonu nit yi laay dégg rek que ni moom dafa bëgg dafa bëgg dafa bëgg dafa bëgg a question dafa bëgg a poser candidature ak yooyu moom waxagul dara quoi. mu gis aussi kat yi tamit du du du moom rek moo fi nekk responsable Cheikh Bakhoum responsable politique APR à Grand Yoff mais am na yeneen responsable yoo xam ne aussi tamit nag pare nañ pour samp seen ndënd ak yooyu noonu donc lan nga wax loolu dafa mel ni benn benn xëccoo la entre ñoom seen i ak yu demee noonu. tout à fait fu nekk nii moom ku nekk ngi jeew jug ni dafa bëgg jël maire bi man mii sax su ma neexoon tey jug taxaw ni bien vrai que ce sont pas mes ambitions mais lu may lu may lu may wax rek grand grand yo fois yi euh, yàgg nañu nax il faudrait plus qu'en fait qu'on se laisse quoi il faut de ñu privilégier surtout des personnes ñoo xamante ne dañu crédible ba pare suur suur mooy nga xamante ne tey bu ñëwee ba ñu jox ko benn entité du jiital boppam nit ñi lay jiital nit ñi ñooy intérêt d' abord nit ñi la ñoo ñoo tax mu nekk fi nit ñi la war a liggéeyal nest pas donc koo xamante ne il est compétent tamit compétence tamit euh, ça pas dire que nga jàng kase nest pas mun nga bañ a jàng nga am yenn nga am mën a am xam-xam nga am compétence mais grand yoo tamit ñoo war a def choix ñu bàyyi yenn discours politique ñi nga xamante ne dañuy dañ leen di nax ñu xool ki nga xamante ne au moins am na loo xamante am na benn background c'est-à-dire am na benn sever bu leer am na jaar-jaar n'est-ce pas te lépp luñ ko mun si jox. jaar na fa ba taxawal ko ba mu ba ñëpp teg ci seen bët au niveau national ñu jël kooku jox ko jox mu gérer commune bi man foofu laay wax mais bu ñuy jël benn personne lambda sorti de nulle part rek tey jii mu jox leen ay beaux discours rek ñu dem jox ko loolu noonu moom moo mais teewul yoraa même di ngeen gisaan ñeneen ñu génnaat ne ni dama bëgg a jël commune bi mais loolu kenn mënul leen ko tere n'est-ce pas peut-être tamit am na yeneen ambition mais l'essentiel euh, la population grand grand yoffoise n'est-ce na def un bon choix su le profil et sur les compétences de cette personne. ok gisoo ni aussi tamit ko système parenage bi dina xaw a bloqué ñu bëri su fekkee ni donc ku ci nekk jóg nga pour wax ni man damay candidat damay posé damay posé parce que pour nekk maire aussi tamit gars yi nañu fàtte que ni yi si parrainage la da ngay dem uti say mbooloo indi lu leer loo xamante ne war nga mën a tax nga mën a présenté wu nekk maire donc ci système mu ak yooyu yéen pare ngeen ci est-ce que ngeen que ni carrément donc ak seen statut Grand Yoff di ngeen mën a atteindre objectif boobu. bon man pour man système parrainage y a pas de problème parce que tey jii ku dem ni ne am nga mbooloo ah mais foog nga prouver ni war nga am nga mbooloo. parrainage bi loolu kese la te parrainage bi tamit derrière c'est ça permet aux, aux différentes personnes là au lieu de rester chez eux ñu wàcc terrain bi n'est-ce pas waxante ak nit ñi. benn benn benn étape la rek avant élection yi benn processus la quoi parce que tey jii balaa ngay dem ci élection locale yi boo bëggee nit ki parrainé parrainé la war nga ko wax lu tax mu war la pare parrainé donc man pour man c'est c'est un bon bon processus pour mieux filtrer n'est-ce pas pour mieux filtrer et pour mieux xam exactement ku ci nekk lan mooy poids am si zone si zone am yow mën nga ma waxal statistiquement tey euh, Cheikh Bakhoum en tant que responsable en tant que directeur aussi nekk doomu Grand Yoff donc loo xamante ne tey def na ko pour jeunesse su Grand Yoff parce que Grand Yoff jeunes yi dañuy dañuy kaas dañu manqué liggéey et puis y' Grand Yoff y' a des jeunes yi nga xamante ne ay cadre lañ am nañu bopp am nañu xam-xam donc personnes yi nga xamante ne ku mel ni Cheikh Bakhoum nekk ci gouvernement bi nekk directeur. agence d'informatique de l'État kooku c'est-à-dire war na ci mën a taxaw ak yooyu noonu yow en tant que responsable ndawam cest à ban taxawaay nga ci gis li nga xamante ne nii donc monsieur le directeur mu ngi ci Cheikh Bakhoum mu ngi ciy taxaw donc jëm ci jeunesse ndawu Grand Yoff yi. bon Cheikh Bakhoum Grand Yoff euh, bëgguma parfois di moom bëggul wax sax di def benn affaire ñuy wax lan lan la def donc euh, de parce que def na lu bëri quoi peut que ni ñu bëri nag xamuñu ko mais tey jii rien pour la jeunesse tey jii côté emploi bi. n'est-ce pas euh, il a eu à mettre beaucoup de jeunes Grand Yoff waa quand même dans certaines structures n'est-ce pas am ñoo xamante ne ñu si bëri am na fu mu leen positionné dans certaines structures donc nga xam ne tey jii ñooñu ce sont des soutiens de famille donc euh, di di di jàppale seen gox euh, au niveau au niveau aussi en fait peut-être de ses réalisations au niveau de Grand Yoff il fait partie des premières personnalités politiques moo xamante ne quand on parlait de la couver la carte couverture maladie moom moo fi njëkk jël plus de 300 familles. Euh, organiser woon euh, cérémonie bi foofu au niveau de de l' des HLM Patte d'Oie joxoon plus de trois cent familles couverture maladie universelle xam mënuñu ko xeeb parce que ni nga xamante ne la santé man dama naan toujours la santé avant tout parce que ku nit ko amul wér yaram doo mën a jug di dem xëy wala ngay dem école ak loolu donc loolu bokk na ci li mu def te et puis il y a pas mal d' écoles au sein de de Grand F surtout école euh, Talibou Dabo euh, su ma su ma jumul foofu na équipé na leen tamit n' est ce pas des salles multimédia en informatique ces Euh, am nañu benn benn benn comment dire benn départ di jàng di jàng avec l'outil informatique donc n'empêche aussi au niveau social il fait beaucoup de il fait beaucoup d'actions n'est-ce pas événement bu fi am tamit dafay mun day dem di jàppale tamit euh, mbokku julli di tout reste yàggul noonu mbokku chrétiens yi tamit mooy la noonu jàppale donc yooyu mu en sax moom bëggul di ko ci wax parce que il le fait de manière naturelle nest pas mais tey jii au niveau de réalisation dans la commune tey y' a beaucoup de jeunes boo génnoon ci mbedd bi mun nañ ko témoigner wax ni kat ah ñoom xam nañ Cheikh Bakhoum lii lañ ko defal lii lañ ko defal et puis il est quelqu'un de sensible parce que bu amee benn problématique quand tu en parles très rapidement il n'hésite pas il le il le il le moom il dafa dafa réservé di tëju du bëgg ñu koy waxal ak yooyu mais politiquement nit ki li ngay def da ngay bëgg nit ñi xam carrément yow li ngay def donc yaa ngi ci activité bi yaa ngi moom tout le temps day faxaw fi mu taxaw kuul fi mu tuul rek jàpp ñaamaram. Ah, mais loolu loolu ci nit la peut-être tamit moom laa ne peut-être c'est une autre manière de faire la politique parce que politique yu bëri fii dañuy wane ah, ñëpp xam nañ ni peut-être seen intérêt autre chose la mais moom day def lu muy def il fait des actes concrets yoo xamante ne tey jii euh, euh, keneen moo koy gisal boppam keneen moo koy keneen moo koy waxal il n'a pas besoin de de dire j'ai fait ça j'ai fait ñun lu ñu soxla mooy nit ki nga xamante ne dafa dëggu su waxee dina def nii dina ko def n'est-ce pas après nag yàlla la yàlla moom dina ko fayal boppam n'est-ce pas mais euh, l'essentiel moom tamit euh, il e il est comme ça de nature quoi donc koo xamante ne tout le temps dafay dafay wane du du c'est pas dafa réservé wu mais noonu la mel na en fait c'est sa nature quoi en tant que tel. mais yéen pour pour pour suñ leen joxee mairie Grand Yoff ngeen defar Grand Yoff faj jàppale jeunes yi ndaw ñi xam nga mag ñi ak yooyu côté sécurité bi ak yooyu noonu parce que l'histoire retiendra fi nga ko waxee nii léegi au cas mun nañ leen joxaat Grand Yoff te image yi dafay génn. Euh, dama koy waxaat dama siy jaaraat dañu bëgg Grand Yoff changer donc ça fait des années des années boobu ñun xale la ñu woon donc gis nañ ñu fi yoroon Grand Yoff mais tey jii ñun wóolu nañ suñu bopp wóolu nañ suñuy compétence te ci fu wóor lañ ko teg ñun teg nañ suñu programme ba pare n'est-ce pas euh, ba am na am na sax ñoo ngi wut sax des partenaires nga xam ne tey jii bis bu ñuy joree commune bi commune bi dañu bëgg mu nekk la premier commune référence au niveau national au niveau du Sénégal ce que je dire parce que Grand Yoff ñëpp xam nañ ko c'est une commune boo xamante ne macha allah dafa bëri dafa bëri ñu fi ñu fi yeewoo mais tey jii dañoo bëgg changer Grand Yoff ci lépp insalubrité Grand Yoff bi dañ ko fi bëgg dindi sécurité bi de Grand dañ ko bëgg renforcer ba nga xamante ne tey jii lépp lu ñu fi doon wax ay affaire d'agression et tout ça doot ñu ko dégg ci Grand Yoff donc en képp kuy yeewoo Grand Yoff tey mu am ci loo xamante ne lu muy suturaal boppam su yeewoo mu xam ne kii kat mooy moo ngi xëy n'est-ce pas en fait c'est tellement large la programme je veux pas je veux pas en dire parce que tamit damay bañ tamit gars yi suñu adversaire yi récupérer ko mais tey ñun defuñu waxuñu pour waxantu lépp lu ñu wax incha allah rab yi ñaan nañu yàlla suñu ko suñu yàlla joxe commune bi ñu mun ko tëral defar ko defar ko avec l'accompagnement bien entendu aussi en fait du gouvernement. merci euh, mu nekk. monsieur Omar Diop directeur relation extérieure bu l'ADIE donc émission bi fii lañ koy yemalee ba beneen yoon ñu ngi leen sant ci seen i àndandoo ak ñun saa su nekk di ñu suivre aussi bu leen fàtte aussi tamit point bu rouge boobu def abonné mën ngeen ci abonné aussi def seeni i commentaire comme nu mu leen neexee comme c'est donc ci ci ce ce ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi la donc tout est libre mun ngeen def seen xalaat seen i gis-gis ak yooyu par rapport li monsieur Omar Diop aussi tamit wax donc monsieur Omar Diop dama lay wax sa mot la fin donc lan ngay tëjee et puis ko waa Grand Yoff population bi ak yooyu donc aussi tamit samp sa ndënd aussi parce que comme ni ñu koy faral di defee ah parce que fii moom donc ku gërëmul rek da ngaa xalab te aussi ñu ngi lay ñu ngi lay sant di la remercier ci sa disponibilité franchement. ok bon Souleymane déjà man maa lay remercier mun naa wax c'est la première fois man may def benn benn interview donc euh, Mohamed euh, yàgg na ma sollicité euh, di ma ko laaj je pense ça fait trois semaines donc di remercier vraiment les mbokk internautes yëpp di suivre cette émission. Donc, euh, c'est, c'est, quand on est des, quand on est des, jeunes, n'est-ce pas, il faut, il avoir en fait un certain métier, n'est-ce pas, pouvoir diviser l'information. Et tey informatique moom c'est le seul moyen pour diviser l'information à temps. Mais peut-être di euh, di santaat waa Grand Yoff, n'est-ce pas, di euh, ci weeru koor wi encore une fois en fait di di renouveler nos nos nos vœux di ñaan yàlla yàlla nangul ñu suñu suñu koor euh, n'est-ce pas yàlla defal ñu jàmm ci dëkk bi def jàmm ci biir Grand Yoff élection locale yi di ñëw tamit yàlla defal ñu jàmm defal ñu si jàmm ba lépp lu siy séntu képp ku nekk lépp lu ñu séntu yàlla defal la ko n'est-ce pas mu mu mu ñëw si jàmm ñu jàll si si jàmm incha allah yàlla may ñun ndam tamit incha allah.